bëgg lool lañu daal di def ba ñu daal di ñëw jël seeni lijaasa ñu daal di toll ci juróom benn fukk ak juróom ñoom nag ñu daal di bokk ci promo yu 2019 2020 2021 ak 2022 mu mel ni jumtukaay yëpp jot nañ ko ngir amal seen liggéey ca na mu waree léegi journaliste euh, rawatina journaliste yi Sénégal critique bu nekk dañ koy dégg te je pense que c' est le moment que ñu gën xarañ ci seen liggéey c' est le moment également ku nekk euh, métier bi anam bi mu gën rafete rafetee nga defee ko ni mu waree. mu doon nag ab liggéey bu laaj ak xam-xam euh, gudul jeex waral nag saa su nekk ki yëngu ci wàllum tasom xabaar dafa war a pare waral nag tàggat sa bopp rek moo ciy muccal. amoon solo la jàngal nañu lu bëri ci éthique ak déontologie jàngal nañu lu bëri ci sémiotique jàngal nañu lu tamit euh, si lu bëri daal euh, si tàggat gi wax dëgg yàlla jaaroon na yoon te dañoo yaakaaroon ne xam nañ lépp mais ba bañ ñëwee ci biir yëg nañ ni nekkate dese woon nañ lii daf ñuy gën a ñaaxaat daf ñuy gën a yokkaat euh, pas-pas gën a yokkaat suñu jéego ci li ñu doon def ci wàllu wàllum média ak xarala yu yees yi internet ak tàggat yi nga xamante ni doo fay dara mu mel ni nag métier bi li muy soxla dafa bari waral nag faaw ñi ci liggéey di xoolaat seen taxawaay saa su nekk rawatina daal am carte de presse. et cette yi ñu jëm dafay laaj acteurs yi ñu gën a responsable ñu gën a bàyyi xel itam te bañ a joxe ay fausse information ndax dañoo gis ne mbir moomu moo ngi gën di bëri ci jamono ji ñu nekk. des fausses informations. at yi ñu jàll ndaje yu mel nii mujjuta am lu ko war a lekk moo nekkoon mbasum Covid 19 sesti nag ak ñi ko jàppale bëgg woyal ndaje yu mel nii ba ku nekk daal di ci gis boppam.